أعوذ بالله من الشيطان وخاد لي منافعا لأوطاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كاد يومي غنا جيم سي نداو نيغا خامي ام ناي اج دو وات نغا خامي في كات جروم نيتا ام ناني كو مسي ньо بوك سي اي ليست الكترال دي داما بغي نيب بيندو جي كوم لو 15 لاي كومونسي لو 15 جويي ما بغي خالاي ريو مي نيب غور جيجين ci mu a bindu nga dem bindu ji te fas yéene nag topp ci le guide président fondateur du parti de la vérité le guide la révolution pacifique ngeen fës yéene ànd moom ci combat bi nekk ci kanam mu di combat politique mu di combat boo xamante ne bii euh, viséwul dara lu dul ñu xam ne rek euh, dëgg moo njëkk te mooy mujj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 base bi du dara lu dul deugal jubal leral niyetul khair wa xoolul khair wa finlul khair bonne intention bonne parole et bonne action li kep la par la voix de Cheikh Ahmed Ibn Ousmane le guide de la révolution pacifique à ala manita ba'al huda et que la paix est avec celui qui suit le droit